suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey nag ñu ngi parcelle unité 15 ah ndogu tey nag te max laa taala Lamine nuyu naa la Lamine Seck ca Loro internet yu suivre Leewtoo TV nuyu leen ma Lamine ne leen maa ngi koy nuyu di nuyu waa Loro xam naa ma wàcc ndànk Loro Loro yi ca itali maa ngi lay bëggee mbaa am nga jàmm Loro Loro yi mbër lay seet fii. ci parcelle unité 15 tali Ndiaga Mbaye wala Cambérène bokk fekk naa fi waaye man li ma jaaxal taala xanaa lii mbaadu man lañ ko fi tegal addina wóorut de lii lan la glace la wala lan ah glace dem sedd la war a andi lii moom xanaa xéewal la glace gaa ngi nii Ousseynou siyaar nañ la bu baax a baax ma am nga jàmm sant yàlla bu wér a wér mel ni ku la gis-gis góor a soog de waaw loolu dafa leer sama doom day la waaw ana Seexuna maa ngi nii ana góor a ñu ngi lay fay góor a ngi nii góor a ngi nii waaw l'homme qui gère tout <laughs> moom mooy seere tay seen de waaw waaw góor a bëgg naa la baax kay maa lay fay tey de sa zone nga de xaw ma poussin la xaw ma zone son euh, bële moutarde sami korom laa gis moo tax man ngay jàppale <laughs> waaw yow laay jàppale glace gi nga toj fii ci maa tax nga toj ko wala ku tax nga toj non bëgg mu sedd rek xam nga àdduna bi moom ku nekk jàmm ngay ñaan te Galass xam ne jàmm lay indi. combat bi commencé gul. combat bi non lii dafa war de nii rek toj ko fi <laughs> waaw. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre seen site internet luttetv.com ak Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar comme ni ngeen koy amee chaque jour rek ndogu ak mbër wala Leewtoo ak Kora Ababacar tey nag góor a soog la mbaal buy jàpp borom Espagne borom parcel 1 ba 26 borom Cambérène. tey nag ñoo ngi fii këram fekk ko fi mu nekk ak ay gaayam nekk tamit ak doomu ndeyam fu ñu gestu gis ko muy Franc ak Bas gis nañ ko fi. Caterpillar mooy kan ci Lutte TV ak Leewtoo Babacar dama lay jox bàyyi ma ñàddal la nga reet <laughs> mag. Lamine Ba lool du rëy waa sama rakk la ndeysaan noonu la fa demee sama seex loolu la réew mi waxte loolooy lay am yàlla na nga am jàmm gudd fan mais yàlla na ko ñëpp am barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ni nga ko waxee rek ñu ngi parcelle wala Cambérène dëkku maam limaamu di profité di nuyu ahlu laayeen yëpp ndax waxtaan olof ne neex boroom kër Lamine di ñaanal xalifa bi yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko di ko ñaanal xalifa yëpp barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam góor nag lañ toogal góor nag euh, koor gi sax koy jëkk a laaj ginnaaw bu sa doomu ndey ak garga de waaw baagal ginnaaw ma sant yàlla juri jonte bi di sant sama ñaari waajur di sant axlu baytu rasul bépp waa Cambérène bàyyiwuma kenn ndax fi laa yeewoo sant parcelle un ba 26. nga laaj góor ginnaaw bi mu nuyoo ba pare. weeru koor ci lañ nekk laaj ko ba xam nga woor wala wóorul. góor yaa ngi woor. non man wóoruma de. loo foo teg lu ni mel. non man bàyyi fa <laughs> loolu day duñ ca sori nun ca lan cay daal di def rek te profité nuyu xalifa baay Fall yi. Ah. yàlla na gudd fan te wér. waaw ñu ngi koy ñaan Cheikh Jëmmu Fall yàlla na gudd fan di sant sëñ Bass Fall Alxuraan di sant sëñ Cheikh Fall Cokki di sant sëñ Cheikh Fall Mboor waaw. léegi en tant que Baye lan mooy sa taxawaay ci weeru koor bi kon. waaw taxawaayu Baye Fall moom mooy xam comme li nga fekk nii rek mooy ñun moom ñu ngi ci li war a nekk ñu ngi ci ndogu yi luñ ma suñ poos suñ ko amee daf ko suñ ko amul xam ne ñun amuñ ko waaw. loolu la Lamine laaj am na solo mm, ndogu yi bàyyi Fall yi ci weeru kor ku ko wax wax leen mais bu dul weeru koor tamit taxaw lan mooy bàyyi Fall dëgg-dëgg lan la war a taxawee ci àddina bi nu nekk rawatina réew mi nu ne muy Sénégal. waaw Baye moom mbirum julli la rek mooy sellal mhm. sellal. jubal dëggal leeral mooy mbirum Baye Fall mbirum Baye Fall mbirum jullit la Baye Fall du yoonu benn yoon bu dul yoonu lislaam waaw. ci loolu daal la nekk waaw ci alxuraan. mu tànnal boppam tari wala ñu tànnal ko mu tari rek. mais xam nga moom jàng soriwul quoi fii mën rek ay ay bisimilahi rahmaani rahim ay tabale daa ay naakal yooyu la gars yi mën te loolu rek. allahu axat allahu samat day ëmb na Ah. Lixlaas la wax de. waaw seetlu na de seetlu moom ci làmb ji. làmb ji ci la ñëw ak moom dañu fàttali palmarèsam ba pare ñu soog a dugg ci combat bi nga xamante ne am na ko nag digganteem ak Tyson 2 ñu war a bëri le 27 juillet boobu mooy nekk sa ñaata combat góor. boobu mooy sama yaakaar naa quatorzième combat de waaw. def nga treize combat pour l'instant. allah def naa victoire. est hmm. ah. yi treize combat la bi xam a dem si ñu xaar ba egg rek incha allah. victoire <laughs> nga bëgg nga xam nombre bi. waaw noo ko amee naa benn recours ci taajan gi ngi neew. yéen yëpp waaw defet la comme defet yëpp. am naa yéen yëpp ay ndam la nag. waa ak Batista sama deuxième combat ren. muy ñaari defet waaw ñaari defet rek laa am. kon treize combats deux défaites onze victoire. waaw sama ñaari combat yi ma ñàkk yëpp ci combat moo tax. bi may doon ñëw combat combat la bu taf si mooy béy wi góor waaw loolu la <laughs> <laughs> waaw. xamuñ bu ko xeeb léegi bu ñu ñëwee Lamine nee na treize combat. Euh, benn naqari wu ma de <laughs> ndax man sa jour su may daanu sax maay bëri ba daanu. Hmm. man defar naqari wu ma ci làmb de yu ma daanoogul. say victoire bu la a neex. yëpp ma neex. bu ci dàq. bi moo tax dañuy xaar ba ñëw rek. Cobra taxaw na laaj ko fu nekk. waat ni suñ ma ko joxee dama koy wane tëkk na ko Iba Mar tëkk ko Demba Diop dem na sax yaakaar naa ba nar a poñante ak moom boobu la. non victoire yëpp rek dama ko daan comme ni ma daan yeneen mbër yi. lay wax quoi maanaam nga jaar ba ngeen bëri. non dañ ne woon daf la dépassé xam nga ko dépassé nga ba laaj ko ba combat bi am moom mu nekk favori combat bi ndax fi mu nekkoon a tax nga daan ko jël ba nga ko daan. waaw combat am saa mbër bi nekk foofu rek soo ko daanee day neex si yow ndax di nga am xam ne am nga ndam bu rëy mhm. waaw. ba nga fa jógee nga bëre ak Baye Mandione su ma juumul. waaw Baye Mandione laa bëree. jaay ko doole. non jaay ma doole sax xam nga bëre moom sunu grand ñu ngi ko xam nga bëre la rek comme làmb yëpp xam nga làmb moom bu ñëw rek ku nekk di nga am ci commentaire boo daanee ak boo daanoo. waaw moo tax làmb noonu la demee. làmb ji jeex Babacar. mu takkal ay pot Tyson 2 fu mu ko fekk ni Tyson 2 foo ko tàllalee micro balaa sant sax ni ko fu nekk nag laaj nga ko fa yàlla dimbali na la combat bi taxaw na foo toll ci wàccaay. waaw ñu ngi si wàccaay comme ni ñu doon waaj yeneen man maa ngi liggéey nekk si ay loxo di ànd ak sama doom day Franc di ànd ak Sorju di ànd ak Poisson di ànd ak mbëru Parcelles yëpp di entraînement di ànd ak Garga 2 man moom làmb liggéey moom ma ci indi te maay liggéey te incha allah le 27 juillet laay xaar mhm. su yi nga fi gis yëpp man la ñuy xaar. te ndam laa leen sos te incha allah naa ko indi. est ce que xam nañ ne fii lay xaar instant bi xam nga adversaire bi ngay bëre parce que dañu gis nekk na mbër moo xam ne nii ah, li olof waaw yow ay affaire dafa dëgër de. non champion la man dama ko nangul champion nangu naa ni mbër la mais champion champion moo koy daan. te yow da nga fas yéene kon daan ko nga wax. incha allah rabbi. dama lay dégg nga ne da nga koy daan gi ni lu ko gëm moom da nga gis ci moom ak néew bëree. dama koy xam nga wane waa sa wane moom boo koy dégg mooy maanaam koo xam da nga koy ñëw fekk ko comme sa portable manipuler ko def ko nim ko nim la neexee jàll. est ce que tey seen deux genre mbër yooyu la. comme mbër yëpp la mel su taxee ma wane ko de su taxee ma manipuler. ci noo koy wane manipuler ci dóor wala ci bëree. non man dama xeex ak moom. bi yoon du ma bëre sax du ma bëre dafa bëri parce que mosuma mbëri bu dama bëri daal ne bi yoon damay xeex mu incha allah. Hmm. xeex ba nga yaakaar bu amee yow da parce que dégg naa ko moom dañ koy woowee borom pokaar yi de ba saf na de. non xam ay pokaar man kuur Baye Fall laa yor gis nga Baye Fall kuur yi ñuy kooku dóor mu daanu kuur bu dis gànn laa yor. Hmm. kuur Baye Fall. mais mais mais xam nga dafa am loo xamante ne dañ koo tàmm gis ci mbër yi damay xeex. arbitre sifflé mu nekk di lewaatoo ndax moom ci liñ ko gën a xam sax mooy ci mbapat bi donte ren daw ren daw na ko mais est-ce que Gora Sock mën naa wax fii ci Leewtoo ak li TV loo xamante ne combat bi su passé dañ la koy tegalaat arbitre sifflé nga samp jaaga yow ak Tyson de ngeen weccante ay kurpañ nga jaay ko sa bakkan mu jaay la bakkanam. xam nga damay bañ damay bañ a samp moom jaaga <laughs> mu yo mu yooru mais bu sampee jaaga maa ngi moom <laughs> dina metti moom trop. moom kay day xeex moom moom ñëpp xam nañ ne xeexkat la wane na boppam ci xeex non moom su xeexee ma xeex su xeexul ma xeex man damay xeex incha allah rabbi su xeexee ma xeex su xeexul ma xeex loolu kay jeexal na. kon lamb ji mooy lamb xeex force. vidéo fi téye leen ko ba combat bi jàll su xeexee ma xeex su xeexul ma xeex incha allah rabbi waaw. moom mën na mën na ma dàq bëre sax mais man bëri ma gën a wóor moo bëriwul nit mën na ma dàq bëre mais dañ ma gënal wóor. lu wutalee wóor ak mën a bëre. <laughs> mën a bëre ak wóor bokkul. wax ñu ko mën na nu bëgg nga tekki ñu ko di. wóor mooy soo dem dem ku dikk nga téye ko te man loolu mën naa ko su ma bëggee dem damay dem su ma kuddi ki dama lay téye. waaw kuy ñëw te gisoo ko nag. non mënu ma a gis <laughs> ah làmb dafa am leneen kon. maanaam xam nga bëri naxante la. Ah. maanaam ci xeex. man na cee bëtt song la. ci lu ne maanaam bëri ku ku ku dañ ne ku la dàq bette moo la dàq bëri. moom waruma mën a nax de ndax xam nga mag moom mag day janaxee mag yenn saa yi day dem ba mujj dootu xam sax sëddi ak doomi ci kër gi loolu laay bañ de man xëy la maa ko bu xel foofu. <laughs> Lamine tey seen ak ak ak góor mag. Ah, boobu ba daal mag la ko jàppee te yaakaar naa ne fii moom ku fi amul 45 ans doona ko mag côté doole yow da ngaa jàpp ne kon yow yaa ko ëpp ba tax nga jàppee ko mag da ngaa jàpp ne yaa ko ëpp doole. lépp luy mbër waxuma taajante kenn ëpp ma ko si làmb ji man loolu laa gëm. Ah, mooy sama liggéey waaw doole. góor a soog taajante doole. doole benn mbër ëpp ma ko ndax mbër mënu maa jaay doole kon mooy kenn ëpp la doole. kii Gora Sock Tyson 2 la la wax. Tyson 2 ma doole. kopp doole yéen ñaar. maa ko ëpp doole. waa xam naa combat capital si man nag combat yi moom combat capital boo xam ne combat moo soxla sama carrière sama carrière yenn saa yi nga jël combat boo xam ne di nga xam ne combat boo fonk say mbokk sax di nga xam ne fonk bi combat fonk naa ko trop trop trop trop. ñaari mbër lañ la déggoon nga leen di laaj bi saison bi tijjee ba léegi moom ak Forza ci ñoom ñaar nga yemoon. lan nga gis ci ñoom ba tax nga leen di laaj. waaw loolu du ci man te ay xeexkat yow yow yow nag liñ gën a seetlu ci sew ay xeexkat rek ngay ngay laaj. waa tàppe du bëgg lu du bëgg lu metti gaynde day bëgg lu metti dafa gaynde la deuxièmement combat li ma doon laaj du man gaa yi ngi gis fii ñoom Bas daal ñoom Ousseynou laa seexu naa ñoom Abdou Ndiaye ñoo toog rek ñoo ni ma ñi nga war a bëreel soo bëreewul ñoom bul bëree dara manqué wul si kër gi lépp a ngi fi amul leen lu la sase comme man lu ñu wax laay def. may sa baay ngay doomi falaati moribul malal doomi mbar mi mbar mi mbar naay ma way takk naa la gañ naa la doomu yaayu Abdou Ndiaye xame bi yàggul waaye jom ja daa loo lamp na bamba feeñoo ci sama champion baa ngi bul tiit bu ginnaaw ka tey Ndiaye kanam ji bee nag cangaay bay naaru faal ma far ma yaasin mi ci dee su ko doyloo di mbaa ngay tardé waayi xuusal aa ah, jàlla ca kanam mbokkum yaayu Franc mbokkum yaayu baslay way mbokkum yaayu Seexuna Jeng Jeng Saala way dee cey sama waaji xam doomu demee ca war wa wàcc noon ya eey jiite mbooloo daa yombul mbër mu takk ngeen ba uti géew ga mbokk ya waajal ñiiw jël seeni oto dugg ca àll ba ñaanlu nga liggéey sa doole boo desee ca géew ga yaa yandi bu fi ye géew ba réew ba ma yëkkatil ma waaj na ne góor a bëreel bëreel bëreel waaye man tamit ma ne Tyson 2 bëreel bëreel Fallou Ndiaye tëggal Lamine waxal Talla filmal Bukar filmal du mën a ñàkk du mën a ñàkk waaye nag nañ ko tey nekk dund nañ ko waaw du ay lam moo ñu boole wala leneen ma ñaan baax a baax loolu am na solo léegi wax nañ sa combat ak Tyson 2 waaye nag duñ ci des Pikine Parcelles la ren Babacar derbi bi soo ci jógee Franc Nguer combat bi ñaari war ndomb ci benn ci benn tàkkusaan Eumeu Sène waa ji war a ñëwaat. ama waa trois combat mu mel ni kon Pikine Parcelles lu yeewooti la waaye Lamine xam nga c'est balaa may jàll dafa am daa bokk ci làmb li fi jóg léegi daa bokk ci làmb Lamine làmb bu ko wayut neexut te waykat ba Wally Seck na lu ndeysaan du neex. te ñii li ñu def ndeysaanu na trop Lamine xaw ma dégg nga wan déet mais nañ dem ci wala 3 3 wala 3 2 wala 2 1 wala 3 un xaw wala nuñ koy tuddee Modou Lo royal la Franc ngeer lay dajal ca keppaaru Eumeu Sène la ne yow Tyson 2 Eumeu Sène a ko uf ba tey waaw xam nga combat bi combat yi ñetti combat yi ñu ngi ci ñaan ndam di wax parcelle yëpp nañu jàpp ñun ay doomu parcelle lañ parcelle li ñu sas ak cambre ñu sas dafa leer. mais problème bi mooy Lamine li doy waar mooy ñoom taay si rek ngeen dem samp fa seenub sees daal lu xew da ngeen faa dégg lu nooy wala. non du samp yàlla moo dogal ñu war a bëre ñoom. ndax dafa nooy. non fii dara fi. taay si nga laa wax de ndax daa nooy ci yéen waa parcelle. damay la man du ma denk débat ci taay si nga man ci parcelle laay débat neuf points lañ ñu sas. waaw sas 3 sas franc 3 sas Modou Lo 3 léegi nu muy demee franc moo war a njëkk a bëre su ñëwee incha allah dafa war a daan incha allah ma daan Modou Lo daan te loolu lañu sas waa parce que incha allah dañ ko matale euh, li koy maye li koy maye xam nañ ko te ñu ngi si franc mii man franc mii mën naa daan ngeer yow pour ndax moom daa daanoon combat royal léegi jóge ci defet Modou Eumeu Sène yor couronne roi des arènes Modou uti woon ko ñàkk ko te que mu tey ki mu koy wuti ji ci moom Modou daanoon na ko nga yaakaar foofu dana nooy. waa na muudu waaw daanoon na ñaan yàlla boog muudoo ko daanoon. di ñaan yàlla muudu daanaat ko. muudu hmm. ndamam mooy ndamu parcelle yëpp sunu grand frère la mu ngi États-Unis ñu ngi koy ñaanal wér ak ba jour si yàlla may ko ndam. di ñaan suñu grand Papa Sow yàlla may combat di wax grand bu baax la sa ngoon maag Franc moo ñuy diriger di ñu entraînement. waaw nit moom man du ma la jàpp lu ngor te Papa Sow nit ku am ku gore la ku baax la ku nangoo sonn ci ay rakam. tey man maa ngi koy ñaanal. ñi ci biti parce que dañ doon dañu seetlu woon ne ànd bi dafa gënoon a tax gën a kii léegi dafa xaw a am lu mel ni roulantir wala nit ñee koy laajte. ah man gisuma ci loolu ah xam nga mbër moom moom mbër la man mbër laa mën naa ko may dara moom mën na may may dara xam kon ñun ñëpp rek benn lañ ci parcelle doomu parcelle la man doomu parcelle laa kon ànd bi na rafet rek ànd bi sax. dara nekk waaw gën nañ gisee nag su ma waxee sama diggante yàlla. Ah, te ngeen bokk non ci combat Boy Niang lañ gëj a gisee man damay wax dëgg ak combat bii ma dem mais gëj nañ dégganteet mais suñu grand la comme comme ñëpp rek. jaaduwul est-ce que lan moo tax mbër yéen mbër yi ngeen di bëgg di dugg ci ay di dund ci ay rumeur wax na ma lii tolloo naa ak moom ah, dafa ñëw tolloo ak man léegi lan moo tax mun leen a nekk si jàmm nekk bokk benn écurie nekk si jàmm lan mooy seen problème yéen bëri. non ñu amuñ problème. Ah, loolu kay problème la. loolu problème. Ah, loolu problème. du problème. non non kon muy ci li la Lamine wax. nekk mooy combat am ñëpp gis stade ma ñëw as sego mu daan Moussa Ndoye keroog ba mu laaj si combat bi lu mu wax kon nekkuñ ci problème. problème mooy gën nañ gisante comme ni ñu doon gisante autant di ànd di dem entraînement gën ko def mais loolu mooy problème mais du leneen problème mais bu fekkente ne nekk jàmm bi Lamine di wax mooy bokk yéen ñi bokk benn écrit defe naa a bokk dóor dóoraat war bokk di entraîner di contact est-ce que loolu lan moo tax mu dagg. waa xam nga garga combat bi mu jëm ni ko bu mu jógee ni combat capital la man dem naa dóor dóoraat entraînement ay jours fekk mu ko fa mais damaa ñëwaat kon sama entraînement dégg naa mi woon di entraînement dindi waaw te man du ma dara jërul ma fen loolu la mais ba mu ba jour bee jotee ma xam ne mën naa ko gis ñëw naa ci bi assé ko waaw. maa ngi rek seen diggante léegi léegi Modou kañ ñibbisi ak contact ren fan la. Lac Rose moom sañootoo leen faa teg seen tànk ndax jigu leen moom ngeen fa seen un mois di nëbbatu da ñi ngeen ñëw fii waaw. Lac ni Lac daal. Modou nag kañ lay ñibbi si moom xam nga mënu ma si wax lu sori ndax suñu grand daal dem na liggéey yàlla na ko yàlla may wér rek ak tal ak fekk moom ñibbi seeg jàmm deuxièmement Lac Rose ak Pikine ak ak Parcelles ak Cambérène yam ba fépp muy nekk entraînement rek loolu baax na. li tax Lamine laaj la doon yéen a fi am combat tamit déserté parcelle daw dem biir la lagros nit ñi leen war mënuñu leen a gis. non dawuñ dara. njëkk tax daw ay rapport réew mi defe naa jas. stade bi xanaa du ci réew mi xanaa moo du bëreewu fa. non maanaam contact xam nga ma dañoo xam ne muy contacté ci secteur am ay supporter am di ko gis seen xel di dal ñu koy soulager. waaw xam nga lu ma si làmb nag duñ toll. mbër yu mag yi nga gis nii gudduñ toll te teraraar nga gis mbër mag buy contact ngoon ñëpp di ko gis est yoon la ah ñoom ñoo xam niñ ci niñ ci nëbbu wal dara nag mun si mun ma sori man mbër ndaw laa fi mbër bu ndaw toll laa toll Lamine yére bi kay di ko musulaay mii di ñaw te joxe fi ay ne yére yi ñeent lay doon Lamine day am Babacar am Bukar am Talla Ndiaye am génneel benn échantillon baa ngi nii génneel musulaay couture mook moo ko Rimka Couture dàq ñëw ci réew mi. Moussoulaye lii la def lii mooy échantillon bi kon yére yi 98 35 34 77 bu la boobu réeree nga jël bii 846 93 11 ba tey des na bu la boobu réeree jàppal 70 542 07 96 yaakaar naa loolu moom ku jaawalewut daga gisoo li mu def ay Rimka Siri Nday di nuyoo di woo waa Cambérène si combat bi ma jëm di woo parcelle 1 ba 26 di woo sama mbokk mboor mboor yi bàyyiwuma kenn xiiwuma kenn dama ñëpp ñëw jàppale ndax sama combat boo xam ne ma ko soxla trop sama carrière di nuyuwaat xam nga Franc du ma ko sant sax ndax maa ngi moom moom benn lañ. Franc ak bëgg ginaar. <laughs> <laughs> di nuyu sortu. waaw. di ko wax yàlla na ko yàlla may combat amagul combat dafa war a bëree comme bëri yëpp. mu ngi nii sorsu yow. waaw ah. keroog le premier. borom def dem na ba demi final. waaw borom Ili borom Mar. di ko ñaan ñu am combat kom mbër di bëre bëre dóor la bëgg dafa bëgg a bëre di wax du sant yàlla bu baax di julli ci bi di sant père ba bu baax a baax a baax aw ma fayam di sant Garga 2 aw ma fayam ndax Garga 2 moom Garga 2 mooy góor a suk rek père ba aw ma fayam mère mère may ba doomam Codé Mbène Mansour doomam Papa Sow Mam Fatou suñu yaay jooju nit ku baax ngi noonu di wax góor a soog daal mi ngi sant wul kenn mais maa ngi sant asuñu bu baax a baax. dinañ bëri incha allah 100 pour 100 Papa ak Yékini ci seen bopp. parce que fi ren boog gisuñu ci seen bopp ndax amuñu combat ren. waaw incha allah dinañ ci gis di jaale sama benn nijaay soxna la fa gaañ jaay moom suñu fële Tiwaawoon maa ngi koy jaale di jaale sama benn maire fii boo xam te ne bii. ku yàgg yàgg yàgg sonn ci man mais ruba ku baax booy ma sotti galaaj maam seex yaayam la fa génn adduna fan yi pas di wax yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana suuf sedd ci kawam di wax àdduna noonu la demal maa ñëw la rek doome yee fi des ñu gën a góor góorgóorlu loolu ñaax la si ñoom koñ bi kenn du fi des gars yi fi nekk asoy laay bas laay seexu naa Abdou Moustapha mooru parcelle dama leen sat si combat bi gars yi nit ñi génn lu ñu jënd si billet dafa bëri combat bi trois man trois lan million loolu moom waar trois million nga jënd billet waaw loolu la gars yi jënd. ñaata lañ la fay. non li ñu fay mënu ma ko ma fay ëpp na lool fuuf. Ah, kon góor laal nga da affaire di. deuxièmement li ma Fallou Ndiaye fay. benn mbër mu nekk promoteur jabar waxal ci loolu la est non balaa sax Lamine est mi am na gel. am na naa gel. ana gel bi. mi ngi fi. France la Lamine ne fa la ne de cey Lamine lu ne moo koy luqat Lamine dafa Lamine dafa mën a dañ ko ba première chose am mooy. bu bëy première chose keroog tey de moom moo xam lu mu dégg naa léegi da nga tuxu noor far ndax combat dafa diis. waaw <laughs> ah, waxul dëgg Lamine lu mu wax dee fois dëgg ay waxam jali muus la de. Ah, waaw mën na nekk na dañoo ragal combat moo tax ñu mais ñun ngi fii kër gi ñu ñu fekk nii ngi fi. mais ana gel bi. mi ngi fële. dëkk bu sori ba. Ah. mi ngi fële Lamine xam na fu mu nekk Lamine xam na fu mu nekk. moom moo tax man waxi Lamine jali muus kañ nga koy takk. ah bu combat bi jàllee allah. dig naa sa rakk sax am na bu benn bay waaj a ñaareel. mais xam nga nag Baslaay mii la gars yi xaar de. kii toog nii. amagul dara. kon yéen baa du seen trio bi xaw ma. yi ngay waxe nii yan micro la. Lig TV ak Leewtoo TV. ok waaw Babacar ak Lamine. waaw loolu am <laughs> Lamine ma waaye Lamine nag damay Lamine daf may wax loo de c'est bu may wax ak bu ma toogee ak Lamine ñuy wax li lii génnay ci man waaw. du mën a ñàkk. dañuy dem nag fële a ba. du ma déet man ta ñàkk duur fayu ku fóotal ma yaa ko xam xam nga mbëtt ak bardu.